cabinet bi mi ngi nekk Tivaouane Peulh soo ñëwee ba APEX si da ngay laaj rond point Manoumbe nga dugg si rond point bi nga taxaw si kalandoo yi ne leen maa ngi jëm cabinet Tawfekh bu Cheikh Ibrahima Niass dañ la indi ba si biir ba si ba si ba si buntu kabine bi képp koo xam ne yaa ngi fiy ñëw rek laajteel cabinet Tawfekh bu Cheikh Ibrahima ñes boo ñëwee ba si cabinet bi daneen la accueillir te boo jubsee kabine bi di ñëw si yooni cabinet bi da nga fa fekk ay table yoo xam ne moo lay indiqué ba nga egsi si cabinet bi. Hmm. li euh, nga xam ne moo di garab yi am solo yi nga xam ne nee naa leen moo nekk kii ci cabinet gi wax na itamit lu jëm ci wàllum baatin gi li si xaar yeeg ak ñaan yi euh, tey dañuy ñëw ci actualité sànq bi euh, keroog annoncé nga fii combat ki nga xam ne moo di Modou Lo ak waxoon nga ne rek dina am changement dina am lu bett li nga xam ne moo di askan bi ak ñi nga xam ne am lu làmb yaakaar naa ne am loo si junjoon hmm. tey mu amaat Modou Lo boogee nga xam ne waxoon nga ko amaat combat ak nga xam ne moo di Boy ñaam ñoom ñëpp nekk doomu Pikine waa xam nga làmb moom mooy li ma wax toujours rek làmb moom maa ngi seetaan lu bari nit ñi di si wax mais làmb moom dafa doon loo xam ne comme dama ko bàyyi dinaa si def nag sama analyse analise bi mooy booy ñaar du Ama Baldé waaye Modou Lô moo gën a xam ne booy Niang du Ama Baldé xaw ma nag ñoom ñaar ku si daan waxuma kenn moo si daan waaye gëm naa ne ñoom ñaar seen diggante mën na nekk diggante boo xam ne dana amaat si prise comme ni mu ko doonoon. dafa am sama benn waaye dama ko waxoon na ko Ama Baldé gàllaajam baaxut parce que boo xoolee si intéressé bi dama la njëkk wax na la Ama Baldé gàllaajam des na parce que liñ koy digal mu koy def du loolu mooy daane mooloo tey nag booy Niang moom xañ na it du amaa balde xañ na booy Niang moom dina am staff boo xam ne dineen mën a ba xel gàllaaj bu baax mbër dañuy seetu ay gàllaajam parce que mbër li koy daane dana def 41 jours mu daane ko ba pare soo ñëw si géew bi mbër mu ne la sama mbër mii kii ma daan nii si géew bi laa ko daanee day nax boppam moo tax Modou bi mu ñëwee contre Ama Baldé contre contre contre Ama takkut benn téere parce que jox nañ ko victoire bi ba téye na ko victoire boobu nag mu téye moom Modou Lo si boppam xam na ne jàpp na amaa Baldé te mën na ko te dana ko duma dana ko daan te loolu yëpp am na waaye nag gannaaw comba bi amaa Baldé moo si ëpp six Modou Lo bu fekkee yéen a ba xel comba bi Ama Baldé moo si ëpp six Modou Lo parce que Ama gàllaaj yi ñu ko mujj jox mu sangoo ko yëpp gàllaaj ji yoo xam ne ñu koy jox nit nit nag dafa am fu muy toll foo xam ne noonu lay doxee si jeunesse am des fois nga am naqar sa naqar gën a yokku des fois nga am bànneex sa bànneex gën a yokku boo xoolee tey Yékini bi mu fi daanee baabooy jamono baabooy moo ëppoon tur Yékini Baboy rek nga ko doon dégg kon làmb moom noonu lay tëddee di ñaan yàlla ñëpp di <coughs> ñaanal yàlla mbokk yëpp di wax ne tey ñu ngi si cabinet Tawfekh képp koo xam ne tey am nga dayo wala am nga soxla si cabinet bi boo egsee daneen la takkadal daneen la ñaanal yàlla ndaa yaa ngi si kaw ku fi ñëw da fi sangu ku fi ñëw danga fi bàyyi sa àndandoo bi ku fi ñëw daneen waxtaan ak yow lii sa jàngoro ñi saafara ko parce que ay nit ñu xarañ ñi ngi fi ay nit ñu baax ñi ngi fi ay nit ñu am yaakaar ñi ngi fi te ñaan yàlla ñaar moo koy doxal mooy ay xol ñooy ànd liggéey ay xol bu àndul duñ liggéey ku sa xol ànd ak sa xoli morom da ngeen liggéey waaye nag ku xol di laalante liggéey day jafe liggéey bii nag ñu sumb mu doon liggéey boo xam ne du liggéey bu yomb parce que boo ne cabinet tey lu bëree la fay xaar ñu bëri dañuy ñëw ku ne fu ne nag nit di jugee di ñëw ñun ñu fi ne ñu ni di liggéey yàlla nañu yàlla musal yàlla nañu yàlla may ñu jàmm yàlla na yàlla dimbali ñu ba képp ku fi ñëw xaajoom mën a faju aajo bu fajoo rek boromam kontaan te gëm neen yàqiin bu wér na aajo yi dana faju ndax ñun yàlla ak ñu koy wan si lu dul nalaw ak si lu dul gis-gis te ñu ngi koy gis waaw. moo di am na loo waxoon euh, bokk ci élection 2024. Ousmane Sonko te yaakaaruma dana si bokk mhm. même sax xalem bi gars yi jox parrainage muy na di Bassirou Diomaye fay gaw ma état bi bàyyi ko parce que xam nga la moo tax mhm. état bi jiite dirigeant bi dañ leen a wax na leen bu Ousmane sonk lu ko laal lu dugg si élection yi mhm. da ngeen perte nguur gi. te ñoom ñoo la gën a xam ne nguur gi su loolu amee dañ koy perte man nag li may wax mooy diggante falu ak fal am neen si juróom-ñaari xaal yoo xam ne dañ koy liggéey yu nit xamul dëkk bi mu koy jëlee bu soobee yàlla bu ñëwee bu bëggee falu si élection yi dana falu pour nekk dara nekk nekkuluñ fi kenn yàlla rek lañ fi nekkal ànduñoo kenn yàlla rek lañ ànd ak képp koo xam ne nag am nga si ñun rafet njort ba jox ñu sa bopp dañ la ñaanal yàlla ba li bëgg si réew mi mën nga koo jot ndax réew ku ne am nga droit ñaanal sa réew waaye ku ne am na droit gis nit ku amee projet bu rafet nga ñaanal ko si yàlla ngir réew moom nekk dara ndax ñun tey bu réew mi nekkee dara ñun ñëpp dañuy nekk dara ndax boo xoolee tey ndaw naa ngi ndaw yaa ngi dee si géej gi lu leen ko yóbbee alal ndaw ñaa ngi dee si géej gi lu leen ko yóbbee mën a faj soxlatu tu fajun seen soxla boo xoolee tey police yi tey boo yi ay jakarta rek lañ amee boo xoolee dëkk bi yëpp ay jakarta lan koo si arrêté benn baat la lay wax mooy damaa bëgg teral sama yaay kon police yi nañu def tolérance ci booy yi nañ leen di jéggal nañ xam ne ñii dépasse ak la ñuy dawi comme ñoom niñ koy dawee gis nga ordre neex na lool mais ba xel yàlla dafa am solo nit dafay ba xel boromam te ñaareel bi gis nga ndaw yi di daw di uti nii dara ñoru leen rek lu dul ëllëg lu ñu am bañ a sàcc bana feeñ yóbbu ko seen biir kër yi man àndumaa kuy toj àndumaa kuy yàq àndumaa kenn waaye ànd naag ndaw loo xam ne dafa gëm liggéey ñu bàyyi ko mu liggéey waaye nag chaque àjjuma ñu bëgg leen a téye lu ñu am ñu nangu ko jàpp leen sonal leen loolu amul benn njëriñ réew ndimbalante da siy jiitu ndimbalante day jiitu si réew waxuma nag ñi koy def dañ koy def taw yàlla tax dañ koy def ta maam maa la neex déedéet ñi leen jox ordre nañ am tolérance nañ am tolérance tolérance dafa baax diine lislaam gi yonent bi indil ñu sax dafa am tolérance bu si nekk kon ñi ñuy jiitu ñu nekk si réew mi di ñu jiite nañ ba xel tolérance nañ wàññi prisonniers yi ñu si nekk bari neen nañ nañ nañ nañ sóoraale yàlla gis nga àddina bii ñëppay dee ku si ne bis dana jot nga tëdd sa bàmmeel laxasoog sa loxo ndeyjoor xool li nga def sa digganteeg sa borom kon réew mi ñu ñëpp ñoo ko bokk nañ maslaa nañ bàyyi yàqante bi nañ bàyyi waxante lu ñaaw li nañ bàyyi xasante bi nañ bàyyi xuloo bi xasante xuloo bi ñu fen mayuñu dara Sénégal mooy dëkk bi dàq wax lu ñaaw te dara yóbbeewu ko lu dut ay junneey nit ñu ubbi sudde internet wax ju ñaaw la ñuy wax ba bët set xawi sutur ak nit yàq sutur nit tas famille te famille boo tas rek jàppal na nit takkoon na fa jabar ngir ànd pour jogal famille bi ñu yàq lool kon nañu yàlla di dimbale nañu yàlla di suturaal nañu yàlla di may jàmm Sénégal Sénégal njaay la ñëpp ñoo bokk ndey ak baay waaye tey dem neen Sénégal ba mu bëgg nekk ay clan foo fekk borom waxkat gu ñaaw moom la ñuy gën a siifur sax si borom waxkatu dëgg bi nañ rafet njottu suñ bopp nañ ñaan yàlla yàlla defal ñu jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf maa ngi am mbégte bu baax si émission bi yaakaar naa dégg ngeen euh, kaddu yi yéegi yéeg tamit numéro yi nga xam ne joxe na ko kon ku ko bëgg a contacter euh, ci bépp domaine boo xam ne moo la moo la yëkkati euh, na ko woo mu jokkoo ak yow incha allah ci kàttanu yàlla aleen ñu ngi leen jox dig daje ba négé ci kanam jërë ngeen jëf